وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk jullit yi nuyu jullit bi lislaam tànn di ñaan suñu boroom subhaanahu tabaraka wa mu dolli ñoo dolli ñu am njëggalam ñu del siwaat ak suñu jotaayu yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu xam-xam jotaayu fàttali ñu nekkoon nag ci téere bi ñuy wax soo sixaar bu ñu xoolee suñu bind bi mujj jàngale woon nañu ci buntu xaaju ñetteel bi nga xam te ni mooy xaaj bi mujj ci xam te ni moom la mujjee dénkaane ci téere bi ba dénkaane yooyu yàlla defal na mu mat kon sëriñ bi tàmbali nag di xamle lan na ci njariñu téere bi ak lenn ci wayu téere bi ak lenn ci ngëneelu téere bi bismillah moo tax mu wax ne nazamtuhu way naa ko li wajhi rabbiya ngir jëmmi sama boroom alkarim kay aji tedd murtajiyan mbir muy aji yaakaar min ci moom sawaaban aw goog du jeex nazman aw woy yaquudu goog dana wommet lil xurumi jëme ci xam-xam ya wal xamal ak jëf wali taaddu bi ak ak teggin yu yassiru tamit yombal al amal mbébét ya urjuusatan muy aw naafixatan wadi wuy mubaaraka wadi barkeer mushaaraka wadi wuñ bokkaale bayna zawi saadati diggante way texe wallaahu te yàlla rabbi yow borom xabila yàlla nga dolle nangu gan nisaama wii way naafi an muy aji jëriñ bi jaahil muntaxa ci darajay ki ñu tànn ka na dool tedd ali ci moom bislaami ànd ak doole wóolu muntaxa ku tànneef na ko bi ci moom téere bi kullu saxirin bépp aji texe naasiin ak aji laabe muntabiin ak aji yow wala yazaalu te déet muy dañ jaari bante aji bijje muy xëcce ilaa buruur muy jëmi ci ak mbaax wa daafian muy aji joñ muy muy rek kullu saxaa in bépp texee di wala xuruur ak waru mu nekk ak téere bi way na ko ngir jëmmi yàlla borom subhaanahu tabaaraka wa taala mi nga xam te ni muy aji tedd waaye muy yaakaar ci woyu borom defal ko ci yool boo te nii am na ak tàmbali waaye nag du am ak yamukaay muy cëre boo te nii cëre ñam ak ay la yoo xam te ni am na tàmbali waaye amut ak waaye woy la boo xam te nii day wommete képp ko xam jàng na ko jëme ko ci xam-xam ya muy xam-xam bu am njariñ waa xamal ak jëf-jëf yu am njariñ ak tegginu te yooyu ñett yooyu boo ko amee muy xam xam gu am njëriñ di jëfe-jëf gu am njëriñ te jëf jooju yëpp li ko lal di ay teggin day yombal say mbébét bokk mooy day yombal mbébét nit ki ki ko jàng mais tamit woy na ko woy woo te moom nañuy wax rajas ci daa bi rajas mooy ni mu woyee téere nga xam ne da koo tàmbalee ci ay bëy di ko daaneel moom nañuy wax bax bu rajas gaaj boobu la ko gaaj muy way yu am njariñ bu am barke yoo xam te ni ñi nga xam ne dañoo texe suñu borom namm na ci ñoom texe ëllëg yomal xiyaam buñ gisee téere bi dañ koy fonko mel ni koy xëccoo ndax njëriñam mais tamit mu ngi dollee ñaan yàlla mu dollee nangu way yi muy way téere bi muy way yoo xam te ni yu am njëriñ la yuy njëriñ yëpp aji texe ak aji laaji waaye tamit mu nekk téere boo xam te ni du leen mukk di xëcc nit ñi di leen yóbbu ci ak mbaax waaye di sori nit ñi lépp loo ni ak texee di la ak ak wóoru mu ne azina digal na lii ñeel ma fii nasmihi ci wi way allahu yàlla asamat kadi kilifa wala ye juruta du bijj lii ñeel ma dawaaxiyal kamat kay aji wooteeb njàqare nazamtuhu way naa ko nag li wajhihil karim jëmmi yàlla mi aji teeg ji wastara ak muy jënd silaa yi samam njaay maa takrim ànd ak ak mu ne nag téere bii daf ko woy waaye nag woy bi koy woy mooy ndigalu yàlla la ci am yàlla ci boppam moo ko jox digal ne ko defal téere bi mu def ko kon nekkul ne téere bi dafa jékki-jékki rek jóg def ko ngir coobaree boppam waaye yàlla ci boppam moo ko jox digal ne ko woyal téere bi kon yàlla mu woy téere bi na ko yàlla mi xam te ni moo jënd lépp ab liggéeyam jënd na ko jënd ko dog waaye ba mu ko jëndee fay daf koo dolliwaat ay leer dolli ko ak may dolli ko ak teraanga mu ne mboolem xeet cant lillahi ñel na yàlla wasalla yàlla na dool ten sama daabu xaw ala safihi aji rambu jàmm yonente si masa ka borom may ahmada mooy ahmad wa alihi ak ñoñoom wa sahbihi ak sahabaam wa yaxmadu ak muy sant moom mi xam te moo alhamdu kadib jaam alxadim gaay ji liggéeyal yonente bi ahmadu ahmad malik boobu ramoon la mu ne tamit <coughs> mboolem xeeti cant yi yàlla la waaye mi ñaan yàlla mu dolli teraanga ba faw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa ak ay saxaabaam waaye moom mi nga xam ne moo tax téere bi téere bi tamit mi ngi dollee sant yàlla moom mi nga xamee ne moo tax mi ngi doolee sant yàlla bi sant yàlla ba nga xamee ne téere bi mat na moom mi nga xam te ni ab jaam la boo xam ne liggéeyal liggéey bi mooy liggéeykatu yonente bi mooy ahmad turam mooy ahmad kon na nga ko tàmbale woon ci téere bi ci tàmbali na ba noonu la ko jeexalee ci sant yàlla moom mi nga xam te ni mooy liggéeykatu yonente bi jeexalee ko tamit ci subhaana rabbika tudd naa sama borom rabbil izzati borom tedd nga ga am naa wala loo xam te ni yes na sell ci moom wa salaam ak dolli wóolu alal mursalina te ñoom yónni walhamdu mboolem xeet cant yi lillahi ñenn yàlla rabbil alamin ak doon bindéef kon mu tëjee ko subhaan rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wax na ne taxliimun lii ak xamle la wa min fawaidi haaja nasmi njariñu wii way anna naazimuhu nekk aji way nazamahu way na ko bi ismin ci ndigal minallahi na wa taala te kawe na wa min rasulihi tukkee ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi yàlla na dolli alayhi yàlla nekk ci salaatu dolli dawat wasalaam ak dolli ak wóolu wa min fadailihi bokk ci ay ngëneel téere bi ba tey annahu naka moom bushira bégaleef na ko baxda tamaamihi ginnaaw ak annahu naka moom ahabbu moo gën a sopp ci yàlla tabaraka barkel wa taala te kawe wa ila rasulihi jëmmi ko ci yonente bi alayhi yàlla na moom bi aalihi ak ñoñom wa sahbihi ak sahaabam asalaatu dolli teral wasalaamu ak dolli ak wóolu min jamihi amsaali yi mbooleem ay kemam mu xamal tamit ne bokk na ci téere bi ay njariñam mooy woy yi ay njariñam kii xam dafa woy way wii nañ xam ne ndigal la boo xam si ni ci ndigalu yàlla la comme nañ ko waxee woon léegi ndigalu yàlla la suñu boom mu kawe mu tedd ma ak ndigalal yonente bi sallallahu alayhi waaye bokk na ci njëriñu téere bi mu ne bégal nañ ki taalif téere bii ne moom kat téere bii mu doon taalif suñu nee na moom la gën a bëgg ci téere yi moom ak yonente bi a bëgg ci téere yi nga xam te dafa mel ni moom maanaam téere nga xam ne ay taalif kat ko taalif ñu taalif ko comme nii mu taalifee téere bi la gën a bëgg yonente téere bi la gën a bëgg bépp rek buñ taalif comme nii rek téere bi lañ ci gën a bëgg kon téere la boo xam te ni bu jar a fonk la téere bu am solo la mu ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak saxaabaam comme ni mu koy waxee nga xam ne heure bu tuddee yonent rek dina ci teg ak ñaan bu am ñaanal ko ak waa këram ak ay saxaabaam wa mimma bokk na ci la nga xam ne bushira digaleef ne ko bii ci moom naazimuhu wi way an na kullu man naka képp koo xam te ni xala awu jàng na ko aw xafisahu wala mu mokkal ko saidan ab texe sahaadatan ak texe laa saxaawata déet ak texe di bax deha nekk ginnaawam wa min bokk na ci ay jagleem anna aafisahu nekk ay wattoom mooy ki nga xam dafa mokkal téere bi laa ko laaj fii xabri yi ci bàmmeel munkarun munkar wa nakirun ak nakir munkar ak nakir ku nekk xam na ko mooy ñi nga xam dañuy laaj ci bàmmeel wa xayru ak yeneen jagle wa xayru ak yeneen jagle ak yeneen jagle noonu la ko tegalee ci téere wallaahu yàlla yàqtasu dana jagleel bi rahmatihi ci yërmandeem man yasaa'u ku ko soob wallaahu te yàlla dul fadli mooy boroom ngëneele al azim kay aji tedd mu xamal ne kon nag téere bii kat bokk ci ay bégal gi ko suñu boroom bégal moom yoon téere xamal ne ko li képp koo xam ne jàng nga téere bi wala nga mokkal ko suñu boom defal naa texe goo xam nii texe la goo xam te texe di ci ginnaaw texe la goo xam te ni daal texe la goo xam te daal maanaam ak texe di moom amaatul ci ginnaaw texe la gu dog gu wér waaye bokk na jaglee téere bi ba képp koo xam te ni mokkal na ko déefu ko laaj ci bàmmeel ku moo koy téere bi moom doo dugg ci bàmmeel mukk ñu lay laaj muy mun kar ak nakir nekk xam ne ñooy laaj ci bàmmeel ak laaj yéen a demee waaye nee na ko téere bi mun kar ak nakir nag lii lii dong nekkul ay ngëneel mu tax mu ne wa xayru wa ak yeneen jagle ak yeneen jagle am na yeneen jagle yu bari yoo xam te xajut fii waaye daf koo tënk rek mais nag waaye yàlla moom mooy tànn ak ngëneelam ak yërmandeem jagleel ko ko neex wallaahu yàlla tamit ba tey mooy borom ngëneel moom yàlla mi nga xam te nii mooy aji tedd ci kon foofu la téere bi yam mooy tasawadu sixaar ay dénkaane wax yenn bi nga xam moom la téere bi am kon nag fii la yamale téere bi kon nag ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu jàmm defal ñu texe defal ko lépp jullit ñu ngi sàkk tamit képp ku dégg téere lii ba fii mu yam mu ñaanal ci doon def lu mel nii duggu dara ngir njariñ ñu ñu rek ndax téere bi njariñ yu am solo yi mu am mu ko doon yaatal yaakaar ne bu ko yaatalee am na ñenn ñoo xam ne dinañ ko jariñu ci moom mu ñaanal ki doon def téere bi suñu boom may ko mu jug rafet may ko mu may ko ngërëmal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngërëmal Seexuna Ahmadul Xadim radiallahu anhu mi nga xam te ni moom lay liggéeyal defal ko texe tey ak ëllëg defal ko mucc tey ak ëllëg defal ko nag bépp jullit kon ñu ngi ñaan daal kenn képp koo xam na kàddu yi ñu jeexalee téere bi nga ñaanal jullit yëpp te ñaanal sa bopp ñaanal ñu yàlla suñu borom nangu ñaan yëpp ci darajaay Seexuna Ahmadul Xadim ñu sant yi di leen teewlu jotaay yi yëpp ñaan suñu boom mu nangul ñu parce que sellal ñu ko ba mu sell yam ñu bàyyi ko si yàlla ahmadou xarit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey